baat yi muy jëf itam waykat yi sañ di jotal Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad ibnul xadimu samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaani yàlla may la dimbal yal na nga yeggale naa lu gaay baaxi fi woon yal na nga yeggale sa yéen yi ci Tuubaa nga xëy ko matal moo ñaan yu baax ñi la yar ñoom ñëpp xëy la gërëm ak Cheikh mag bii de kon bu yàlla xëy ko dogal der baa ngi yoon waa ngi yéen baa ngi teel na woyof yaa aw ci jéego yoon say wax la yàlla saxal woyof sa ko waaye daal kuy wax na wax la mu xam biir baa di yàlla gabam daw leen ci jéem a jubal jox naan saa ruu gi ak saa xol bi ak lu ma jur saa yéene ak lu ma jëf loo wax ma def ko waxal bindéef yi maase na booloo bindéef yi maase na booloo xam ni yaay ci fi woon luy tatra bolaate ah, ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal te yaa ko waral yal na la musal ci ndog nga jëf ba matal sigal nga say mag te boo say doom ñu topp ci yow Cheikh Bamba jiite la yaa sa rakk nanga lu dimbal alhamdulilah am nan cant war na ma ndax cant bindéef ci yow Cheikh Abdou maa ko jotal yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yoroon ah, Abubakar yi fi woon mbooleem lu Cheikh Bamba naaloon ko matal yaay yow mboolem lu Cheikh Bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay xubu yaay xawsu yaa najul xadimul asamtu wala bahrul anwaar noo ngi sakku ndimbal buur yàlla noonu nanu ya ku dem jolof xam na la yàlla saxal tuuba yal na la yàlla saxal tuuba yal na la yàlla saxal tuuba ba daj amee xob nguub sa rakki boot say doom te jox nu ndigal yal na la yàlla saxal tuuba ba daj amee xob nguub sa rakki boot say doom te nu ndigal

ak ki woon doos yàlla na ko suñu borom koo lim. dañuy def ku jàng ak xasaayit rek. Hmm. yónnee ni jàng naa xasaayit sàngam lim nangam. Hmm. kaamil yéet ajjuma jute ju ne danañ ko wàcceel ab kaamil ci biir groupe bi. Hmm. waaw téeméeri kaamil la ak fanweer. ak ak ñeent. Mhm. sëñ Abdoulaye Toum sëñ mi moo koy taxaw. def ngeen lépp. waaw waaw daal noo noo noo am tawféex yi tudd sëñ Abdoulaye loolu nag. ñu ngi koy sagoo di ko ndamoo lool. Ah, alhamdulilah <laughs> ah, ah, alhamdulilah ndax alhamdulilah jërëjëf jërëjëf sëkk macha allah loolu sëñ bi waaw a baax kaamil yéet dañuy def ajuma ju ne ñu mhm. wàcceel ko ab kaamil mhm. bu téeméer ak fanweeri kaamil la waaw yaa xutbu yaa kawsu yaa naju xadimul asamta wala bahar lan waa noo ngi sakku ndimbal buur yàlla noonu nanu maa nan sax balaa ku dem jolof xam ni mooy lu wér doxalal yal yàlla saxal tuuba yal na la yàlla saxal tuuba na yàlla saxal tuuba ba daj amee xob nguub sarakii boot say doom te jox nu ndigal yàlla na yàlla saxal tuuba ba daj amee xob nguub sarakii boot say doom te jox nu gal